waaw bon li ñu bëggoon xamal juste mooy que ñi fa nekk li ñuy dund métti na trop te je pense que ñu ngi koy ñu ngi koy wane ci ñu ngi koy wane ci ci réseaux sociaux yi je pense que kuy suivre information yi di nga gis euh, ce qu'ils sont en train de vivre donc je pense que bu gouvernement bi ne on les suit de près moi je me dis que ils ne peuvent pas être plus près que que ñun ñi nga xam ni ñun ñoo seen famille di déggante ak ñoom chaque matin ñun ñoo xam li ñuy dund d' accord yónn leen aide financière faut être bien précis ku nekk 700000 francs lañ leen envoyé 700000 francs ñun ñëpp xam nañ ni dund ci boppam xaalis mënu ko jënd et à moins que ngay envoyé les gens 700000 francs 700 000 francs lu mu mën premièrement deuxièmement nga envoyé nit xaalis boo xam ne mun ko utiliser pour génn ci biti kon xaalis boobu ça sert à quoi le gouvernement nee na ils n'ont pas les moyens pour les évacuer d'accord mais je pense que fu Mauritanie évacuer Maroc Algérie def ko je pense que Sénégal mën na def la même chose les ressortissants sénégalais ils ne sont que 13 à Wuhan je pense que loolu noonu c'est pas trop difficile faut le dire le président bu génnee ci biti d'après les informations que j'ai eues dernièrement il dépense six millions pour son avion six millions par heure pour quinze jours ça fait combien deux milliards cent soixante mille ils ont l'argent pour ça pour aller prendre son je sais pas de la paix mais non pas il est là pour nous bu fa doomam nekkoon dina ko jëli muy moom muy keneen raay raayal bi moo ko fi jarul foo dire les choses telles qu'elles sont mais bon bu fekkee yeneen dëkk il le font yeneen dëkk tamit il courent les mêmes risques risque de contamination même bu fekkee Sénégal amul moyen bi d'accord mais la les collaborations avec les autres pays ça sert à quoi ah les les coopérations avec les autres pays ça sert à quoi la France qui a envoyé deux avions beneen avion y avait presque pas de Français juste quelques Français et d'autres Européens treize personnes fu ñu fu ñu xat yomb na même boo amul moyen au moins essayer de trouver solution. pour moi bokk man boo amul amul moyen essayer d'utiliser tes relations mais toog ne amoo moyen je pense que c'est c'est c'est grave quoi pour un président taxaw ne on n'a pas les moyens ça veut dire que on les laisse là-bas en fait après bu ñu deewee garaawul quoi est-ce est-ce que bu doon seen njaboot la dinañ réagir noonu. pour vous dire mon frère lui-même il partage sa chambre euh, d'université avec un Mauritanien qui est parti avant donc euh, excuse amatul je pense que excuse amatul là ça devient clair quoi ki mu bokkal chambre barki démb la dem donc lui aussi il peut partir il faut juste réagir et ils ils de dire aux étudiants ne parlez pas aux journalistes ku sul seen mboot la ñuy bañ on ne demande pas on ne demande on supplier wuñu leen dara on leur demande juste de faire leur devoir et un président pour moi avec tout les respect que je lui dois qui n'est pas capable de rapatrier 13 de ses ressortissants sénégalais il veut prendre en charge 16 millions d'habitants mais soyons sérieux quand même sama mag bu fa nekk ki muy partagé chambre d'université mauritanien la n'est-ce pas donc kooku barki démb dem donc kooku bu demee donc euh, une affaire bi nekkatul problème mu waxaan mi nga en quarantaine on passe sortir les le les les les citoyens qui sont là bu fekkee ki mu nekk seen état seen état génnee na ko fi mu nekk kon ñun tamit je pense que suñu état war na mun loolu même si amuñu moyens yi coopération yi dafa war a am njëriñ avec français yi avec les autres pays loolu la gis quoi et aussi euh, si tu si peux pas suñu président dañ ko fi teg pour euh, pour mu veiller si ñun nous sommes tous ses enfants xam nga loolu je pense que foog leer parce que ñun nous sommes tous sous sa responsabilité daf ñu war a jël en charge. n'est-ce pas donc bu fekkee treize personnes ñi ngi en danger en danger de mort ak maladie boo xam ne mi ngi propagandé wu presque deux mille cas par jour les risques sont grands quoi en fait donc amatul lu ñuy lu ñuy xaar wala ay ay on les suit de près non amul lu ñuy suivre on doit passer à l'action passer à l'action mooy lan les rapatrier même si bu fekkee dañ leen en quarantaine ñu mettre leen en quarantaine temps temps de de l'incubation quatorze jours vingt et un jours bu fekkee dañoo présenter ay symptômes après après ñu traité leen ils ont ils ne seront pas en contact avec les citoyens directement nañ def yeneen dëkk yi def mais ba leen foofu noonu naan ay on les suit de près mënul gën a près que ñun ñi nga xam ne ñooy seen famille te ñu ñoo leen dégg chaque jour je te jure saa yu ma yeewoo la première chose que j'ai fait c'est d'envoyer un message à mon frère pour xool na mu ngi si jàmm wala déet si si le le gouvernement rek est incapable de rapatrier treize de ses citoyens nan la ñu mënee ñun gérer ñun seize millions Macky Sall dañ ko fal pour ñun pour ñu waxuñu ko instant yi dañuy teg affaire président mais mu dawal yërmande à tant que père en tant que frère en tant que ami dawal yërmande dem jëlal ñu suñu frères yi ak suñu doom yi nekk foofu te yàlla tax te xam ne dafa metti rek dafa metti waxantuma nga xam ne soo ubbee sa buntu danger mu ngi si buntu bi pour ñëw atteindre la amoo kenn ku la dimbali dañ koy ñaan ngir yàlla ngir jullit ak comme papa comme frère comme ami mu dimbali ñu dem jëlal ñu suñu doom yi nekk foofu loolu lañ koy ñaan. Euh, compliqué na. c'est compliqué parce que chaque jour il envoie des message day woote day message di ne bi nekk foofu compliqué na de ce fait pour man comme ni ko sama frère bi waxee c'est pas compliqué collaboration dafa war a am donte amuñu les moyen dafa war a am dañoo war a collaborer avec les autres pays pour ñoom ñu mën ci jàpp ñu mën ci jàpp jàppale Sénégal doomu Sénégal yi nekk foofu sonn nañ vraiment sonn nañ xaalis bi ñu leen yónnee amul njëriñ benn 700000 francs bu ñuy virer sa compte ñu viré ko fa munoo ko utiliser ça sert à vraiment ça sert à rien génn jënd lekk munoo génn dox sa soxla mënoo génn def dara kon 700 millions yooyu lan lay jëriñ Macky Sall bu mu foo ne lépp xaalis moo koy faj lépp xaalis faju faju ko na jóg jóg jot na jóg jot na daal. Euh, depuis bi ñu déggee coronavirus benn fit toogatul ñu dañuy ñaan gouvernement mu réagir bañ a xaar musiba am ñuy door a ñëw di réagir. parce que dama seetlu ne Sénégal su problème amee duñ ci taxaw tey su bakkan rotoon ñu ñëw di joxe xaalis te loolu mën na ñàkk fagaroo gën faju neexul même ku fa sa doom nekkul neexul tey ñi fa seen doom yi nekk tëddatuñu lekkatuñu naanatuñu nelawatuñu bu ñu demee ba def li dañ jaaxle kon na leen dimbali ñu ngeeg seeni jet privé benn avion ngay gis benn nit dugg si dem lijjanti ay soxlaam ñëwaat kon jet privé yi ñu teg noonu du dugal xaalis bi fu mu warul tey dañoo gis ay nit yoo xam ne war nañ leen dimbali ñu jël seen jet privé yi jëli xale yi ñu ñëw balaa musiba di am ñuy ñëw di jaale ji indi ay xaalis defe naa am na lu ko gën daal ñu ngi koy lancé nag appel président de la république ni moroom président bi yëpp def dem jëli seen doomi réew na ko def moo indi moo gën parce que yaakaar naa lu Mauritanie mën tëwul waa Sénégal parce que gàcce la aussi ay nawleem la ko seqal j'aurais aimé que mu gën a réagir yëkkati siggi Sénégal may ñu ndam dem jëli suñu doom yi indi leen parce que tamit ay nawleem la ko seqal loolu rek lañ koy wax.